loxo yéen kaay gi di réew mi quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall nee na 2021 kii gagné prix bi danañu ko jox lu toll ci 30 millions yéen kaay gi de la Soleil nee na ñaareelu édition forum numérique bi bi nga xam ne démb la commencé si Diamniadio njiitu réew mi di président Macky Sall yëkkati na fa ay kàddu wax ak askanu Sénégal ci lu jëm ci coronavirus bi nee na nañu si def ndànk ndax ñaareelu vague bi bu ñëwee ci réewum Sénégal loolee musiba ma ba kumba la loolee giraawaali gu lay doon ndax sunu économie réew mi maanaam attanutu ko yéen kaay gi de l'Observateur nee na lu jëm ci ñaareelu vague coronavirus loole nag tiital na ñoom baxtalu nguur gi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall nee na coronavirus virus bi ma ngi circuler ba léegi ci biir réew mi yéen a kaay gi di Vox Populi ak la Tribune ak le xëy na ci assemblée nationale niki démb doon nañu voté li nga xam ne mooy budget yi waaye xuloo bi ak xeexoo bi bëri woon na loola yéen a gi di réew mi quotidien ak la Tribune nee na député Pape Seydi Dianko moo fa naroon a dóor député Cheikh Abdou Bara Dolly ndax Cheikh Abdou Bara Dolly dafa wax ne direct directeur général des domaines dafay jël ay terrain maanaam ay titre foncier di ko jaay ñi nga xam ne ay prostituée lañ maanaam ay caga yéen a kaay gi délibération nee na député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké wax na lu rëy ni ki démb maanaam ci assemblée nationale wax na fa aw toj penc ndax moom député bi nee na jokkoo na ak mam buy jaaw lu bare bari envoyé na ko ay message di ko xamal na ko titre foncier yi yaa ngi koy jël di ko jox caga yi waaye loolee na dakk moom sëriñ bi nee na mam buy jaaw yoon boo xamante ni tontu a lañ gis ni ki démb ci assemblée nationale daw na yaram lu rag raglu la këral borne fontaine enquête yéen a kaay nee na njiitu réew mi di président Macky Sall lu jëm ci wàllum budget yi yokkal na nag ñi nga xam ne ñooy ay alliéem seen budget moo xam assemblée nationale au conseil des collectivités territoriales conseil économique social environnemental yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Abdoulaye Daouda Diallo nee na budget 2021 bi xayma nañ ko si 4500 milliards yéen a kaay gi di Dakar Times xëy di ko dëggal Abdoulaye Daouda Diallo nee na li tax ñu yokk ko ba foofee bokk na ci relance économique bi ak jafe-jafe yi nga xam ne amee nañu ko yéen a gi di Source A ak Les Échos xëy di ñu xamal laan ñu démb ci assemblée nationale maanaam yaram dawoon na ndax na nga xam ne moom la député yi doon waxee ak na ñu doon doxalee ñaaw na lool ba fa ñaaw yam yéen a gi nee na conseil économique social environnemental Idrissa Seck Macky Sall yokkal na ko ñaari milliards yéen a kaay gi di Libération ñu xëy fekk fa ay dëmbo ca député bi nee na nag li nga xam ne moom la ñuy sàkku mooy délégation de l'entrepreneuriat rapide maanaam ñu daal di fësal liste bénéficiaires yi ñi nga xamante ni financé nañ leen ci milliards yi ay dëmbooj nee na liste bi dañu ko war a fësal ndax moom dafa am njort bu ñaaw ne maanaam ñàkku leeraange daal dina say am yéen kaay gi de la Vox Populi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides génne na lu toll ci cent millions jox ko ñi nga xam ne ñoo lakkale ca marché Ocass ba sa Touba réew mi quotidien Madické Niang joxe na lu toll si ñaar ci ay millions Vox Populi nee na lakk gu metti ni ki bi nga xam ne moo nekk Solida Castor ci entrée ni lu ne ma nga fa ndax ay jaaykatu ngooñ ñoo nga fa ay jur ñoo nga fa xar yaak nag ya ñoo nga fa ak ay garage yu mécanicien ak ay atelier journal bii di Vox Populi nee na garage boobee moo lakk ay millions moo fa naax saay ñi nga xam ne ñooy sapeur pompier yi bi ñu dikkee ngir ñu dugg sa biir ngir fay lakk gi daj nañu musiba ak mbelengaan yéene kaay gii di laas lu jëm ci wàllum plateforme débatteur yu APR ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall bëgg a tànn ngi nag ñuy dem si plateau yi di ko défendre ak di wax bilama Mambay ña moom nag nee na raxasu si yéen a kaay gi de la témoin nee na lu jëm ci waajtaayi élection présidentielle 2024 maître waa Wade ñetti mbir la sant waa parti démocratique sénégalais bi si njëkk mooy mobilisation nee na leen amal leen ay mobilisation yu rëy bi si des nee na mobilisation yooyee na ànd ak organisation bu mat sëkk ñetteel bi nag mooy retour Karim Wade yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak le ci ndaje mi nga xam ne procureur yi ñoo ko doon amal niki démb ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllum justice di maître Malick Sall moom maître daan na yëkkati ay kàddu Sénégal mandat dépôt dañu ko gaawal loola ndax am na ñu bari waruñu leen mandat dépôt ndax la ñu def mandat dépôt ëpp na sa moom maître nee na am na si ay infraction maanaam ay njuumte yoo xam ne jërut ñu si jël nit di ko yóbbu sa kaso ba wax na tamit ci longue détention yi nañu ko wàññi yéen kay gi di stade xëy na ci club bii di Naples ñoom bu doon na ñu jooy ba tey Maradona yéen kay gi Matar Ba daat nay wax ne lu jëm ci compétition sportive yi commencé waat ci Sénégal dépendrul ci moom ci fédération yi la dépendre yéen kay gi di sunu làmb